nuyu suñu papa bëri si ginnaaw benn ceeb nuyu suñu grand suñu leader muy euh, grand Amar Sène. Amar Sène bëri bëri. di rafetlu trop trop trop trop initiative booy ñaa jël. dem si dama dem si dama booy ñaawoo ne ma papa sama dama xalaat lii ak lii ak lii ak lii. ma ne ko def nga li nga war a def. ndax kañ la wax ku war a wax ak fa la waxee loolu am solo ci communication. lii. man bi ma gisee Augustin monsieur Augustin Senghor jigéen def def sorti dama ko rafetlu lool lool lool c'est parce que dafa war a wax ak ban kañ la war a wax ak fu mu war a waxee boo ñaa li mu jël fii la moo tax ñu ngi laan la boo ñaa fi nga ko teg foofu la wax dëgg yàlla def nga geste noble def nga geste kilifa def nga geste loolu bu weesoo nag ku ne xam ne ne ñu ngi ci jamonoy euh, mbas ñi ngi masaw képp ku ci ñàkk bakkanam ñu ngi koy jaale seen ay mbokk ñu tamit ci lal hôpital yi yàlla yëkkati ñëpp wàllu wàllu mbëkk mi nag ñi ngi jaale suñu mbokk mbëri particulièrement ñi des si géej gi hmm. di masu tamit ñeneen ñi xam ne tey seen ay mbokk des nañ ci daal dinaan bon monde làmb nag na ñàkk toog waxtaan moo am rek mais làmb amul benn coow hmm. làmb sport national la mooy li wax ci euh, ministre de la culture làmb lay def 4 heures de temps hmm. bëri 30 minutes ci am culture am ci 2 heures 30 3 heures 30 wala 4 heures de temps mais ñun jóguñu suñu bopp ci côté boobu di wax aussi tamit mbër yi impacté nañu ba nga xamante ne tey jii ñun du duñ yëkk suñu kàddu mukk di laaj ministre bi ko suñu ngor mayuñu ko suñu suñu dignité mayuñu ko ñun ñoo mag loolu mais ku ne xam ne ñu dañoo impacté kuy sonn tey mbëri ngay mbëri ngay wax di lancé benn appel aussi tamit di wax ne ñu ngi naan ay euh, huis clos huis clos dafa am dafa am lu mu àndal lan la àndal mooy sponsor yu mag tey ji da ngay saan Ligue 2 da ngay gis ay entreprise français bi nekk fi Sénégal di sponsoriser ay équipe championnat France Ligue 1 Ligue 2 nekk ay sponsor leader mm-hmm. boo xoolee tey dangay xool euh, Bolloré da ngay xool Eiffage da xool Total Sénégal da ngay xool ah. Orange Sénégal mm-hmm. mais xëy na ñooñu bëgg nañ sport ñooñu entreprise yooyu bëgg nañ sport mais contrat yi ñu signé ak suñu ay nguur ndax par force ku signé contrat ak nguur di nga signé loo xamante ne tey da nga koy dugal ci social mais pourquoi pas ñun suñu côté wàllu hôpital wàllu sport wàllu culture liñ ci am nañ ko nguur bàyyee mu néew mu bëri nañ ko bàyyee te xam ne bon ñun am ñu lu làmb ñu ngi taal suñu loxo ministre bi di ko taalal président Macky Sall di ko wax ni bon ñun amuñ lu làmb hmm. ñun suñu bëree sax desewuñ dara desewuñ ñaar dërëm nañ nañ bëri rek féex nañ bëri suñu xol di féex nañu seen làmb suñu xol di féex nañ fexe nañu jàppale ni boo ñaax sàng am solo la dañuy jënd ay droit télé boo xamante ni ay coupe ay champion du ay nangam nangam nangam pourquoi pas la lutte léegi maanaam àdduna dox na dox boo xamante ne nii ku jàpp ni population bi nga yor ay ngaaka lañu waaw yaa ngi nax sa bopp tax bu njëkk benn télé moo fi am muy RTS ak benn rajo muy rajo nationale mm-hmm. mais léegi ñaata presse ñaata ñaata ñaata moo am presse sidi rek mbat nañ 500 ñaata télé moo fi am ñaata rajo ñaata ba tax na nag ku nekk jàppee sa morom nii mm-hmm. la nga xam ndax boo defee boo signé contrat Europe wala Amérique yaa xam loo si mën di signé. 30 hmm. minutes après ñi duggal ci euh, ñi duggal xam na li xew. Hmm. nañ ñu dimbali rek xam ne ñun suñu ay nawle lañu. Ah. ñun suñu ay doom lañu. Hmm. ñun seen ñoom suñu ñoom ñooy suñu ay njiit. nañu yërëm. njiit moom bu yërëmee ku mu jiite rek seen ànd day neex. wax nag yombul ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp. di wax ne na monde am yëpp booloo nekk benn sàccoon.